particulière la yàlla def na nag defal ko xéwal tey muy julli ajuma mu ñëw julleek ñoom te du guleet mu koy def dégg ngeen ko ci nit ñi li ñu wax euh, ki fi ki wàcc liggéey nag doonoon xaritam doonoon relation am euh, keroog bi loolu di am ñu ngi conseil de ministres ca la nit ñi ñu ci bëri ci ay ministres dem leen ngeen teewal ma loolu dafa particulier woon du dëgg kon nag euh, ci dañ koy sant ci ni mu bëggee askanam ni mu jegee askanam ak yërmande gi ne ci moom te li nga xam ne moom it du fàtte démb président nit la koo xam ne du fàtte ay nit démbam loolu dafa am solo parce que dégg ngeen fi ay nit yi wax ay relation ñu am ay ñaar fukki at wala lu ko wees yoo xam da ko am ak euh, président président nag fonk itam communauté bi parce que ay doomi communauté bi ñu bëri ñu ngi ci wetam di doon ay conseillers am di liggéey ak moom mu recevoir communauté bi am amoon seen i mbébét ñoom ñoo ko waxal fii ngeen dégg ko ni mébét yooyu li ñu waxoon président lépp euh, euh, def na ci la mu euh, li mu diggee woon kon loolu lépp sant yàlla la mu woote nag pour ñu ñaan réew mi réew mi ne ci jàmm parce que réew mi Sénégal loolu la baaxoo réewu jàmm la réewu mag ak rak baay ak doom ñun loolu la ñu xam man fi ma bokk dañu naan rak topp mag mag topp baay kon nag loolu itam dañuy ñaan rek askan bi ñu ñu dëkk ci loolu parce que réew mi suñu réew la réew bu ñu war a tabax ab réew la boo xam ne ñun dañu war a dabu dañu war a dabu ci économie dañu war a dabu ci développement dañu war a dabu ci lu bëre kii dabu nag bu dee yaa ngi xiiroo ŋaayoo sa biir amaana liggéey bi dana xaw a sooxe kon nañu gën a joxante loxo nañu gën a fonkante gën a wekk suñuy kilifa wekk suñuy euh, suñuy mag euh, parce que réew mi ku la ëppi at itam am na lu mu la ëppale mën nga ko ëpp jàng ak lool ci yeneen fànn waaye am na loo xam ne fekk na fekke woo kon nag nañu wegante nañu fonkante rek Rapidement en français, est-ce que vous pouvez nous résumer ce que vous venez de dire Oui, simplement dire que par la grâce de Dieu, le président est venu prier ce vendredi avec la communauté soninke ici. Une communauté qui est très attachée à lui, qui avec laquelle il noue des relations assez solides et poussées. La preuve, c'est que beaucoup d'enfants de cette communauté euh, travaillent, sont à ses côtés en tant que conseillers ou en tant qu'occupants de hautes fonctions dans ce pays-là. Euh, le président a des relations très anciennes dans cette communauté et c'est quelqu'un qui tient à ces relations, qui tient vraiment à être fidèle en amitié, etc. Euh, l'imam qui est décédé, cela nous a trouvé en plein conseil des ministres. Et c'est sur place qu'il a demandé à une forte délégation de quitter le conseil et d'aller le représenter, à la levée du corps et ensuite de le représenter ici. Il a profité de ce vendredi pour venir présenter ses condoléances aux familles et à toute la communauté, aussi bien sonique que sénégalaise. Et donc, il a, je ne peux que me, en tout cas, euh, magnifier cela et dire que je retrouve toujours un esprit qui est celui du président. Il est le président de tous les Sénégalais, euh, il est le président de l'équité. Voilà pourquoi il ne cesse de chanter l'équité territoriale, l'équité entre les communautés, entre les jeunes, les moins âgés, etc., les plus âgés, et d'appeler à une prière pour une paix au Sénégal, pour une concorde et que les Sénégalais se retrouvent parce que nous avons un pays à construire. non pas un pays déjà achevé, nous avons un pays à construire. Et pour construire ce pays, nous devons nous donner la main parce que seuls les enfants de ce pays peuvent construire ce pays. Merci beaucoup.